jërë ngeen jëf euh, yéen sunu mbokk internet bu 221 people ñoo ngi leen di nuyu di leen di jaajëfal bu baax di ci dellowaat rek ku nekk euh, sa wàccuwaay amaat leen di kontaan ak mbégte bu baax nag comme ni ma ko faral def saa su nekk kilifa yi wala sëriñ boo xam ne dama laa dal ci biir set bi rek damay fas yéene saa su nekk ñuy waxtaan ci xam-xam yaatal ci atia te nag dalal naa leen beneen gan ñu fas yéene yaatal ci xam-xam bu baax a baax kooku mooy kan sëriñ Bassirou Fall borom xalwatu te nag dinañ waxtaan ci ponk yu bëree bëri yaatal ci waaye lépp rek ci xam-xam lañ koy wéer rawatina lii di xew-xew jamono di actualité dinañ ci yaatal bu baax a baax kilifa gi laata may dugg sama biir programme damay bàyyi nga néew ba pare ñu yaatal bu baax a baax. waaw waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu dina ñaanal tamit tànk yi ngeen dox ba ñëw ba fii suñu borom def ko ak yiw di ñaanal suñu borom def ci réew mi jàmm di ñaan tam ñi nga xam ñoo tëdd ci loolu hôpitaux yi suñu borom fëgg seen bopp ba ñu mën a jug dellu ci seen yitte di ñaanal ñi xam ne ñoo nekk ci prison yi suñu borom génn leen fa ba leen fa dugal dootu leen fa dugalaate di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di ñaanal kenn ku ne li ngay sàkku mu muy sa wàllum lu mënti doon suñu borom defal la ciy jàmm ci barki borom bi subhaanahu wa taala bismillah jërëjëf sëriñ euh, Fallou Fall borom xalwatu ñu ngi lay fay bu baax di lay kontaane ginnaaw seen seeti yoo tan dal ñu ngi ciy kontaan bu baax acca euh, tey nag fa yéene ñoo waxtaan ci xam-xam lu ci fukki ponk waaye dinañ ko xaaj ñaari pàcc diggante pàcc ak ñaan suñ fa jógee dinañ waxtaan ci xew-xew jamono mu di actualité. atia lamb ji ñii dinaan dinaam doom du àgg wala du àgg moom nag euh, am na loo xam ne gis na ko ci diggante Sa Thiès Reug rawatina du ngeen bëggee xam kay daan ba ci sarax yu ñu war a génne topp leen ko tey rek ngeen dégg kuy daan rek ngeen bëgg xam topp leen ñu ak euh, Serigne Bassirou Fall politique président Ousmane Sonko ni muy doxee ak Macky am na mbir yéeme yoo xam ne gis na ko ci coppite ci langue ku ji langue politique bi dinañ ci yaatal topp leen ko ba mu jeex atia dama bëgg ñu tàmbalee ci seet seet ak listixaar bëggoon naa xam ñaar ñi lan moo leen wutale ak yow ci fan nga féete ci nga xam ne moom ngay jëflante ak jaamu yàlla yi. waaw man wàllum seet doon na ci loo si dama doon loo xam dama ko mitire loolu daa koy xam te man ci alxuraan laay seete ci laay ñaane duma ci génn wàllum li su xaar tamit lu ñu fanaana la doon waaye bu dee wàllum seet ba mu woowee léegi ci kàttun yàlla ngaa fay ma sa ak sant tur waajur yi gën ma seetal la léegi bu dee li la ñuy fanaan lay doon te wàllum seet dafa doon loo xam si ne maam doomu aadama fu mu toll da ko war a deflu nit dana dugg ci dara sax te seetlu ko te xoollu ko fekke na loolu bu ci duggee ay jafe-jafe lay am kër boo boo koy tabax faa war nga ko mën a xool ba xam ndax jig na la wala jigu la ndax fi nga koy tabax ni baax na wala baaxut muy wàllum soxna muy wàllum oto muy wàllum lu mënti doon boo ci dugg war nga koo mën a xool ci boppam ba xam lii boo ci duggee tey doo ci am benn jafe-jafe moo tax seetlu doon wàllum seet doon na ci loo xam si nii doomu aadama yi mu toll da ko war a def ci boppam seet lu ñu maîtriser la doon waaye ku yàlla dogal nga bëgg ma seetal say mbir ci boppam bu ma la xoolee da nga jàpp ne ku la xam moo ñëw wax ma say mbir te fekk du loolu fekk lu mu maîtriser maîtriser lay doon moom wax dëgg yàlla moom sëriñ am na sëriñ soo xam si dañuy ñëw sax ñu nit di leen seetloo ma leen di seetalaat ñu koy wax te fekk ni seen jàmbaar te fekk loolu ci man la ci boppam waaye loolu dama koy sant yàlla donc da yàlla suñu borom mooy dogal jàmm bi lu ko soob mu def ko ci moom te yàlla nag suñu borom am na lu ma defal loo si ne képp ko réccu mhm. waaw moom listixaar moom lu ñuy fanaanoo lay doon képp ku yàlla dogal bëgg ñu fanaanoo seen mbir buñ la fanaanoo ci boppam ci boppam da ngay tamit ku la xam mu ñu wax daa may wax say mbir ci boppam wàllum listixaar ba tey wàllum seet ba tey bokkuñ ci boppam yaa ngi dégg waaye seet mooy li nga xam si nit ki dalay woo léegi nga seetal ko léegi wala mu ñëw fi toog nga seetal ko léegi bu dee listixaar moom lu ñu fanaanoo dong la mënti doon te mhm. kon mu fa mu daaneele dinañ sampaat beneen laaj bu ci leen yàkkamte dinaa leen jox numéro Serigne Bassirou Fall ci kanam léegi atia dama ñëw ci ñi nga xam ne dañoo néew kàttantu dañu bëgg am lii di ngóor bu am solo ndax rawatina yii moom doo ko amut waa Karna sa kër niñ koy waxee du neex new kàttan. waaw wàllum kàttan bëri na ñu ma koy jàmbat lool ba noppee ñu nax ci ñu baree bare bari waaye wàllum kàttan doon na ci loo xam si ne man képp ku ma ko jox wala képp koo xam si ne maam kàttan dalaa dal mu xam kàttan gi nu mu la mënti dalee ci kàttanu yàlla boo ñëwee incha allah rabbi lii bis boo ko jëlee ci kàttanu yàlla kàttan du doo ko jàmbati fenn bu la neexee sa ngir gi dund maanaam dootoo jàmbate ci kàttan ci fenn ndax taay yi loolu ndax jamono jii ma yoxe nii bari na fi lool loolu ñu koy jàmbal loolu ci boppam lii maanaam fii ba euh, Sénégal gii fii ba bitim réew fépp dafay dem maanaam fépp dafay dem am na ñoo xam dañu koy jël sax di koy jaayaat di mën nañ ci dimbali ñu koy defaat angura di koy jaar pour di ci dàq dara ci boppam waaye bitel bi ci ku yàlla dogal maam ñàkk ci am wóor ku yàlla dogal nga fexe ba am ci bu bit li bitel balaa jeexee fi nga ko naanee fi nga yëgee changement ci boppam fi nga ko naanee fi nga yëgee fi nga yëgee li nga yëg ci boppam te bis boo bis boo ko jëlee ci kàttanu yàlla jàppal ne maam sa ngir gi dund moom kàtt doo ko ñaalatu fenn. bi ko ñaata minute nga mën a def. maam lii boo ko jëfandikoo ci boppam lu mat lu ëpp dix mën nga ko def sa kaw soxna ci boppam. lu ko ëpp nga ko def ci sa sa sa sa kaw soxna ci boppam waaye tamit man du ma ñaanal nit te seetlu ma ko. ma loolu ma ko def ndax nit doomu aadama fu mu mënti jógee bala nga koo ñaanal faa nga seetal ko. ko muy xaw maa ñaan doomu aadama bala ma koo laal faa ma xool ba xam lan mooy jàngoroom lan mooy lan ma waral jàngoro ci boppam waaye bital bi nag ñàkk ci am wóoru nag gaaw nag balaa jeex Mm-hmm. nee na gaaw leen balaa jeex mu di kàddu yu Serigne Bassirou Fall borom xalwatu daanee leen te nee na it ñàkk am butéelu néew kàttan boobu wóorut aja ci ñi nga xam ne soxla nañ ko da ngeen di def 77 370 60 84 wala nga def 78 410 37 46 ma baamtuwaat ko ñi nga xam ne raw na leen 77 ngay def 370 60 84 78 400. 10 37 46 atie ñu dox ba léegi yaatal bu baax a baax jàll ci beneen ponk dama ñëw ci nopp ndax dañoo seetlu ne féewaloo bi dafa bëri ni nopp bi ngay def. waaw wàllum nopp doonoo ci loo xam si ne maanaam ku yàlla dogal nga am koy bëgg wala nga bëgg koo takk soxna seen diggante am jafe-jafe ci boppam wala mu xam ku góor ki moo ko bëgg wala mu xam ku jigéen ki ci bopp moo ko bëgg ndax wàllum nopp bëri na sëriñ su ci bàkku ci boppam dafa fekk ni maîtrise suñ ko mm-hmm. maam nopp dafa am bis am heure ci boppam. ba noppi nopp dunu loo xam da ngay ñëw wax jël turu turu ndaw si wala nga turu jël jël ñaari turi rek maam dugal non non da daa dafa am dag dafa am rawxaan am am biddiw am heure am bis ci boppam waaye nekkul nopp da ngay ñëw rek daay nopp non ma loolu d'accord ma ci hmm. waaye ku yàlla dogal ci boppam maanaam nga bëgg nga am koo bëgg ci boppam hmm. moo xam ku góor ki moo xam moo xam ku jigéen ki moo bëgg ci boppam moo xam ku bëggante tubaab ci boppam hmm. ci kàttanu yàlla boo ñëwee su ma la ko fasalee vingt-quatre heures laa may wala trois jours ci boppam ki nga bëgg ki ngay bëggantee dana topp sa ginnaaw comme ni xaj toppee boromam bu fekkee tubaab la du ma ko noob noobi de aliwe xànjar laa koy noobee maam tubaab kenn du ko noobee noobee aliwe xànjar laa koy noobee ci boppam bi dagg xaatim bi daf ko ci aliwe xànjar dagg raw lépp ko ci ay xal di sikkar tur yàlla tur yàlla ngay sikkar ci boppam li nga am ngeen koo bëgg bëri na bëri na ñu nekk diaspora bi ñu leen di noobal ci wàllum tubaab duñ jàpp li tax xam li ko waral lan la dañoo jàpp ni yii dañuy jàpp tubaab te lii mënutoo jàpp tubaab tubaab jàpp la te man laa soxla ci benn mbir muy sëriñ si maam li may jàmmat ci wàllum ñi xam si tey dañuy yónnee seen xaay duñ gis njariñ bari na lool te mbir mi dañ ko war a teg ci lu leer te xam ne maanaam fii addina dong la mm-hmm. maanaam alal du dara maanaam ah, maanaam àllu dara te kenn ku lépp loo def ci lu bon wala nga nax nit ki lekk xaalisam mhm. ëllëg yow mu dana ko laaj sa bàmmeel te ëllëg dana taxaw nga taxaw lu mat a sóoraale mhm. te eh, boo yoree njaboot yori soxna lu bare bare bare war nga ko mën a sóoraale mhm. xam-xam moom doon ci loo xam si ne muy dimbalante ak jàppalante dong la waaye nag képp ku yàlla dogal bëgg sa aajo faju boo gisee man Sadio Faye dana faju ci kàttanu yàlla. moo mm. gis ngeen ko ci nob bi di koy jaarale ci fas ak yi nga xam ne yëpp lim na ko kooku mooy Serigne Bassirou Fall. ace ñu ñëw ci ñi nga xam ne dañoo bëgg am uh, lii di wërsëg boo xam ne bu gaaw la rawatina sama mbokki ndaw ni ngi sant Diallo. waaw maanaam wàllum wërsëg. Mm-hmm. ndaw lu ne war na koo sàkku. te ndaw lu ne buy liggéey war naa mën a jaar ci yoonu jom ci boppam. Mm-hmm. ndax ndaw li liggéey jàpp naa ne am na am na ku yaakaar. Mm-hmm. am na ñu la yaakaar loo xam sa lépp ci yow lañ ko yaakaaree te ndaw nañuy da nit ñi dañu gën a fonk seen waajur yi te ma maam ñaan baax na waaye na boo ñaanlu tamit da nga da nga dem taalal say loxo say waajur yi ñaanal la ci boppam mm-hmm. yaa ngi dégg waaye képp koo xam si maam wàllu wërsëg say bunt wërsëg dafa tëju nga bëgg ubbeeku ba jaaxal lool wala moo xam ki nga ne dafa am bëgg am amam day gën a dolleeku bu baax a baax a baax wala kuy liggéey maa mënut réussir ci dara. Mm-hmm. ci kàttanu yàlla bu ñëwee de lii su ma ko ci tànqalee incha allah rabbi maam danay da maam bu di wërsëgam day ubbee ko day dem day dem ba jaxale ci boppam. bu fekkee ñoo ko daan dimbali mooy dem ba dimbali nit ñi ci boppam ci wàllum wërsëg ci boppam. maam day dem ba dimbali nit ñi ci boppam ci wàllum wërsëg waaw ndax wa wa ndax addina dafa fi jamono ji may waxee yow ci boppam boo amul da duñu boole ci nit ñi maam boo ñàkkee dañuy maam lu baat bu ñaaw bu da nga ko dégg dafa ñàkk fayda dafa nanga moo tax ndaw li jukk ndaw li soogu jukk wala kuy liggéey ci boppam naa ñaana yàlla am da jëm a ñaanlu sa jëmm ji ngir ngir suñu borom am daay am daay am daay la jox wërsëg boo mën a wërsëg say njaboot ak say bopp waaye ci yàlla képp koo xam si ne maam wërsëg ci boppam nga bëgg am say bunt wërsëg daay tëju ci kàttanu yàlla ñu jokkoo incha allah rabbi. yéene naa leen ko te damay bëgg ngeen am lu baax dina leen joxaat numéro yi ci bu leen yàkkamte acca damay ñëw ci bayre commerçant bi nga xam ne yaa ngi koy def boobu moom ñàkk ci am warut ku bëgg jaay jaral rek jokkool ak Serigne Bassirou Fall. waaw wàllum commerçant dafa doon lu doy waar da nga yor sa place yi liggéey sax maanaam nit ñi ñëwal la loolu nga den denta kenn ko si ni suñu borom lim la wërsëg la wërsëgalu ko ci boppam mu liggéey la mm-hmm. ndax liggéey dafa bari lool jamono ji mm-hmm. am na ñoo xam si ñoo ngi seen place sax laa fi mu toll nii ñu ngi naan ñu ngi naan liggéey daan am fi mu toll mënutu ñoo liggéey am na ñoo xam dara mënutuñ ko am dañuy gis ko xam tànkam sax mu mujj neewi dañuy gis ko xam day jógee këram wala ñëw ci place du mujj agsi ndax parce ay liggéey ay noon ak lu ne ci boppam ñoo koy gan faral ci boppam waaye commerçant bi xam daa bëgg place am dox lool bëgg am kaaraange ci boppam maa nga xam soo képp ku ko liggéey da ngay faatu wala képp ku la liggéey boppam maam day ñëw ba woon na la diw maa liggéey ci boppam wala nga bëgg sa place dox lool lool lool lool maam nit ñi di lay ñëwal wala ñëpp dégg la ci kàttanu yàlla am bayra bu saf-sàpp ñëwal ñëwal maanaam ma jox la ci sunguf si ci kàttanu yàlla sunguf si maam maa ngi ko tuddee bayra commerçant laa ko tuddee commerçant yi nga xam ne seen maa tey jii dañoo bëgg seen place dox lool bëgg am kaaraange bëgg lépp luñ dugg mu réussir wala ñi xam ne ñu nekk bitim sax di jaay maa tey jii di jaay bëgg seen jaay mi daay dox lool ci kàttanu yàlla nañ ma woo te man sama kaaraange balu tañ si la maam su ma la ko defalee képp ku dal sa kaw day gaañu ba dal la ci kaw nit day gaañu te man sama ñaan bala fetal la man képp ku ma tiir bu ma la dàkkee dama lay jëm incha allah ci kàttanu yàlla. Mhm. kooku mooy Basirou Fall acca ñu dox ba léegi yaatal ci beneen ponk ñi nga xam ne dañuy liggéey ci bërëb lu mel ni place dañuy bëgg ñu déggal leen euh, ku mel noonu doo jëflanteeg moom. waaw maanaam ki xam sa nekk ci place bëgg ñu déggal ko moo xam entreprise la yor moo xam si dafa nekk bitim réew moo xam dafa nekk Sénégal ndax képp ku nekk ci place liggéey ñaan nga yàlla ñu déggal la moo xam say employé lay doon wala nga ñaan nga yàlla nga am fa baat bu dul bu bu fekkee sax da nga faa doon ab ab kii employé yooyu noonu ñaan nga fa yàlla am fa baat. ci kàttanu yàlla loolu képp koo xam si ne maanaam ba yaa ngi nekk ci bërëb liggéey bëgg ñëpp déggal la incha allahu rabbi maanaam dañ la déggal déggal koo xam si ne da ngay mujj sax sa bopp. ci boppam bu fekkee da yor say employé sa employé day xaw a dëgër bopp ci yow maanaam ci kàttanu yàlla buñ ci jëflantee dañ la déggal bu fekkee da ngaa yor entreprise bëgg entreprise bi dox loolu bëgg liggéey bi jaaru teg ci yoon ci kàttanu yàlla incha allah lépp lépp dana saafara lépp lépp dana saafara incha allah rabbi mhm. la soxla fàttali leen ñaari numéro yi. waa numéro bi moo ngi nekk 77 370 60 84 wala ci numéro bi 78 410 aja kon mu ngoog ci ñi nga xam ne rëcc na leen ni ma koy waxee saa su nekk numéro bi moo di 77 370 60 84 wala nga def 78 410 37 46 aja ñu dox ba léegi yaatal ñëw ci beneen ponk dama ñëw bi yoon ci liñ naan rab rab ci boppam mooy lan dama gis sëriñ su bëri dañ ciy waxtaane doo waxee ñu bari am nañu gàllankoor rab lañ koy teg. waaw am na ñoo xam si ni sax dañuy ami gàllankoor ñu jàppee liggéey kenn liggéeyu leen cat la jàpp ak cat moo leen jàpp ak rab ci boppam te rab dafa doon dafa doon lu doy waar mën naa tëj nit ki ba buntu wërsëgam yëpp tëju mu jàppee dañ ko liggéey yaram fu mu toll ti diis day jàpp ne maanaam ko liggéey fekkee ne jàpp ku xob bañ moo ko lee fekkee liggéeyuñ ko moo tax ma sama njëlbeen gi wax naa doomu aadama fu mu toll war naa mën a seetlu ci jëmmam war a ñàllu ci jëmmam mm-hmm. ndax ndax gàllankoor yi dafa bari gàll li mën a gàllankoor doomu aadama dafa bari lool doomu aadama yi bu ñu def dara sax duñ ko seetlu bëri na ci loo xam si ne boo koy def maam day tax rab maam pour mu dugg la pour mu dikkal la ba mën a tëj sa lépp day maam day yopp yenn saa gis ku doon liggéey sax maam koom-koom daan bari muy def yo muy def système yoo xam si wala am na ñoo xam si sax maam di tëdd koo xam si léwu la mhm. mooy laa tamit nga tëdd koo xam léwu la sanguwoo farata yu mel noonu yooyu yëpp day waan rab wala day waan rab ci boppam da ko indi ci boppam mhm. te yëpp da rab dafa dafa doon mbir mu doy waar wu garaaw boo xam si bu la xasee ba dugg mhm. jeex na tàkk waaye képp ku bëgg a tàggale ko moom ci kàttanu yàlla bital bii bis boo ko di ci sangu di ci raay saa boo rab moom di ci kàttanu yàlla fu mu la gis dalay dalay daw dootu la duggati incha allah rabbi maa bital bii rab moom dootu la duggati ci kàttanu yàlla fu mu la gis dalay daw yaa ngi dégg te da ngaa moom rab ba faaw incha allah képp koo xam seen maam da ngay am jafe-jafe yaram seram di diis moo xam rab moo xam rab la moo xam lu mët doon gaaw nga jël ci bital bi ci kàttanu yàlla bital boo ko jëlee da ngaa tàgg moom incha allah rabbi macha allah kon am na solo jërëjëf Serigne Bassirou Fall borom xalootu jërëjëf ci xam-xam bi waaye jërëjëf ci leeral yooyu nga xam ne am na solo acca dama ñëw ci xalootu gis naa ñu la koy dàkkantale xalootu. maam wàllum xalwatu bëri na ñu ma koy dàkkanteel ak ak léppay baax léppay baax gi moom daara ji la ñu ko tuddee woon muy doon loo xam si ne maam Euh, man man yàlla dogal ne man képp ko xam si ni maam da nga fi indi aajo boo fi ñëwaat benn aajo nga fi indi wala du waaye du aajo nga fi indi waatoon wàllam xalwatu doon na ci loo xam si man doomu aadama bi bu fekkee daa bëgg ma dugg xalwa wallaay xasim laax ne ci yàlla laa xewaat sama diggante sama bàmmeel bu fekkee lu mënti lu jafe-jafe bu mënti indi muy xam muy lu mënti doon ma dugal xalwa ci kàttu ne loolu day saafaraw bu fekkee daa daa bëgg ñëpp dégg ko bëgg ko ko samp ñëpp dégg ko ci addinaam na ñëw ma dugal ko xalwatu ci xalwa moom sama mbir sama mbiru bopp la mhm. am na ci sëriñ soo xam si sax dañ leen koy duggaloo ñu ñëw ñu fayaan ma leen koy duggalal ci boppam waaye jàppan ni képp koo xam si ni da nga bu ma la ko duggalee mhm. ci kàttanu yàlla yow na sa xel dal foo tekk na sa xel dal maam da xam ne maam ci boppam yaa yaa yaa ñi nga maaseel doo leen bokk ni fo doo leen bokk sax wërsëg ci boppam bu fekkoon yaa ñoo leen dimbali maam wàllum xalwa sax man man su ma wax bëgg bëgg bëgg ma duggal ko nit boo jëlee nga lem lebe sax ñëw ma duggal la def ko na parce que njëriñ lee tax ndax nit lem na fi million jox ma ko pour mu dugg xalwa bi ma ko dugalee ba noppi kam mu war a fay da koo fay ba wis ko barki alxuraan du jaaxaan. jërëjëf mhm. ñu ñëw ci samp bi nga xam ne jot nga ci dugg léegi samp nit laa bëgg ñu siwaat ndax doon na loo xam ne yomb na mbiram kaaraange bëgg naa ñu waxtaanal laal ci. maam wàllum samp doomu aadama bi bu nekk ci bërëb samp ci bërëb. Mhm. moo xam dafa nekk Sénégal moo xam moo xam nekk bitum réew di jëfla ci di maam di jëflante ay nit wala illaa tamit maanaam mu nekk mu yor ab place normal ci boppam war naa mën a fexe ak samp foofu noonu ndax nit day nekk ci place sax ñu yëm ko faa yëm ko faa jëlee ci boppam waaye képp xam dangaa nekk ci bërëb moo xam foo mënti nekk bëgg bëgg ku la samp foofu bëgg ña nekk ñëpp digg la maam mooy li nga xam si maam sa tur sax dana àgg fu su jëm àggut tey jii moom mi nga nekk Sénégal waa bitim réew waa Sénégal di lay dégg di dégg sa tur mm-hmm. maam li nga yor di koy jaay waaye li nga waaye li nga li yor nit ñi di ko yittewoo dañ koy jënd duñ la gis yaa ngi dégg loolu mooy wàllum samp ci boppam nga xam ñëpp lañu ñëpp ñëpp lay nangul addina ñëpp lay nangul moo bi moo xam doon ñëpp lay nangul ci boppam te foo dem bokk te alal moom doo ko manqué ci boppam képp koo xam da bëgg siw bëgg ñëpp dégg la mhm. moo xam muy waykat bi moo xam artiste moo xam ku mënti doon mhm. ñëwal ci kàttanu yàlla bu ma la sampee danga indi ñeneen mhm. waaye yow boo ñëwaatee yeneen aajo nga wax fii benn aajo benn yoon lañ lañ ko fi indi boo mu jeex ñu faj boobu mu jeex nga indiwaat beneen yaa ngi dégg Mhm. ku bëgg a nag maanaam am kaaraange bu am solo. maanaam kaaraange dafa baax ci doomu aadama ndax doomu aadama dafa wut war a wut bu baax a baax sax da nga bokk moom nday bàyyi nga nga nekk ci dara mu iñaane la nit dana nekk sa mbokk nga nekk ci dara mu la nit da nga bokk moom fi ngay liggéeyee mu iñaane la laa liggéey nit da nga ànd moom chaque jour mu lay ree fekk ni moom maam li nga nga mel ne da koo naqari ci boppam moo tax kaaraange dafa baax ci doomu aadama doomu aadama maa moo xam ñi ndaw ñi ndaw ñi dañu wut wut kaaraange bu baax surtout maa ndaw la nga xam ne daa ci buntu wut ci boppam mhm. bëgga a am oh. war naa wut yii wut bayra wut kaaraange maanaam wut lu koy musal ci cat wut wàllum wërsëg ci boppam mhm. waaye kaaraange doon na ci loo xam ne si ne maanaam man su ma su ma wax bëgg nit ñi di may déggal mhm. nañ ko wuti wallaay xasim nañ ko wuti nit nit dana dugg nit dana dugg ci dara te wutul kaaraange nit gis ko iñaane ko def ko dara maam loolu jàpp da fekkee dafa jugutoon ci boppam ci boppam yaa ngi dégg yaa ngi dégg te muy xam muy wàllum seet tamit nit ñi fu ñu toll dañ war a def dañ ko war a def ci boppam aja jërëjëf ci ñi nga xam ne yéen a ngi doon ñuy topp waaye képp koo xam ne numéro bi da la jot a raw euh, ma baamtuwaat ko da ngay def 77 370 60 84 deuxième numéro bi mën ngaa jël 78 410 37 46 aja euh, fa ñuy jeexale tey nag bokk na ci xew xew jamono mi koy waxee mu di actualité dañuy tàmbalee ci làmb ji laata ñu ñëw ci politique bi làmb Sa Thiès Reug Reug ni ngi dimanche la soreetut ñii naan làmb ji dina am làmb ji du am ñii naan euh, ndax combat bi du amee dina àgg waaye man li ma gën a làmb ji Sa Thiès Reug kan moo ci daan loolu la gaa yi bëgg waaye ku ci war a génne sarax it kan ci la. maanaam làmb dafa doon lu doy waar loo xam si maanaam dafa bëri wàllum gàllaaj te jàpp naa ne ñi waxuma la waxuma la sax maanaam ñi ñi war a bëri ñi ñi ñi war a bëree ñi ci ñaar ñi war a bëri ñi topp seen ginnaaw dañoo dañoo ñoom ñoom ñoom ci bopp sax dañoo dañoo war a wut gàllaaj waroo génneel seen bopp ay sarax ñoom. def ni mbër mi parce que nit nit ki bëre. Mhm. mën nañ koo jàpp jàppale ay supporteram te te làmb li ci gën. Mhm. ay sarax ci la bokk. nit mën ngaa sangoo mën ngaa sangoo lu ne sangoo ba sonn ci boppam. fekkee ni yow say mbir yow fekkee làmb ci boppam ay sarax ci bopp mooy cëpp doole. te làmb boo xoolee sax man man boo xoolee nit ñi mhm. bu ñu xoolee sax ci la wàllum làmb dañ waroon ñu mën a xam ne ay sarax mopp ci làmb. xam si ni moom mooy Sa Thiès boppam. war naa mën a ay sarax ay sarax lu mel ni ay fruits ak glace ci boppam war ko mën a génnee galaas fiir wi ak i mburu mm-hmm. ak i mburu yoo xam dañ koy diw sokolaa war na ko mën a génne ci boppam maanaam da war yooyu ci boppam dañ ko sarax na ko mën a génne ci jëmmam ci boppam mm-hmm. yaa ngi leen ba noppi daay jëmma jëmmi aar boppam ci boppam balaa làmb ji incha allah. Mm-hmm. kan mooy daan kan nga ci gis. loolu moom jotuma koo xool kii daana yooyu moom jotuma koo xool wala làmb sax man lim man daana man du ma ci kii nii mm-hmm. yaa ma ci dugal waaye daanaka man lu yooyu daanaka du ma ci du ma ci faral di yëngu yooyu ci boppam mm-hmm. yaa ngi dégg waaye li ma mën a xam daal mooy wàllum làmb daal moom képp ko xam si moom bëgg nga suñu borom may ci ndam fexeel yow ba say sarax na gën a bari. li nga wax Sa Thiès pour sarax soos du fekkee ne génnut comme sarax yooyu nga fi jot a lim nag lan moo a a xew. maam sarax yooyu daal li ma mën a xam daal moom na ko génnee sarax yooyu daal moom ci boppam yi ma maam na ko génnee bu ko génnewul ci boppam moom ci boppam maam lii maam lii lii naqar mun mun mun naa dal mun naa mun naa dal ci koom naqaru ci boppam mën naa dal ci kawam ci boppam waaye daal da ko génne daal incha allah. jërëjëf ci président Ousmane Sonko la ñuy jeexale gis nga mën naa ne boobu ba léegi doonut loo xam ne euh, lu neex la ci moom gis nga politique moo bindoo noonu coow li bëri na ci moom élection yi fi mu ne nii li ci desate bëriwut ni ki deux mille vingt quatre le vingt cinq février atia ndax gis nga yow fu mu doone président wala mu bokk. maanaam Ousmane Sonko doon dafa doon doomu aadama boo xam si ni sax waxuma la leen waaye ku jar ragal la. ku jar a ragal la moom. lan noonu ndax sampam suñu borom la xam suñu borom yéen suñu borom des fois day jël doomu aadama bi ci boppam. def ko noo xam si ne maanaam du ko def sax ñeneen ñi. yaa ngi dégg maam maam dafa maam dafa am doomu aadama yoo xam képp teel boppam moo leen teel boppam ci boppam képp ku loolu laal da nga yàqu Ousmane Sonko ba mu dalee door ba tey man li ma li ma li ma gis li ma teg sama bët bi képp ko xam dugg nga ci ay mbiram loo xam ne maam waroo ci dugg wala tam nga wax ci moom ci loo xam ne waroo ko wax maam ci defen ngay dëkk yaa ngi dégg mm. waaye jëmmi Ousmane Sonko man Ousmane Sonko man mooy toog président yaa ngi dégg mm. parce que dëgg la woote dëgg ci moom la woote te man ku woote dëgg yow damay ànd ak yow ci dëgg Ousmane Sonko kenn ko xam si dafa indiwaatoon dëgg sax bu fi ñëwaatoon moom lay àndal képp ku ëpp ëppale ak dëgg Ousmane Sonko bu fi ñëw dama fi bàyyi Ousmane Sonko dem ànd ak kooku ci boppam. est-ce yaakaar nga bokk. wax dëgg yàlla am naa yaakaar mu bokk lool te bu bokkee da koy jël incha allah ca kàttanu yàlla boo ko bokkee moom da koy jël incha allah ca kàttanu boo xoolee ñi boo xoolee ñëpp ko bëgg mi xam mi dongo daara yeeg muy sëriñu daara ñëpp ko bëgg dafa maa ngi dégg sax ñu ci wax wàllum daara yu mel noonu alxuraan maam képp ku ci nekk di jàngale wala képp ku nekk ci daara dem bay jàppale nit ki daal nit dama bëgg kii ni mu mel nii maam kii li mu bëgg nii mu am ko wala lim lim lim bëgg mel nii ni laa bëgg mu mel ko loo suñu borom da ciy jàpp ndax alxuraan dafa dafa doon lu barkeel ci boppam waaye na li may li may laaj daal mooy na ñëpp ñaanal Ousmane Sonko suñu borom may ko jàmm maam mu jël réew mi da def da da daa koy defar def daa defar defin wu rafet woo xam ne si maanaam bëgg na ni ko nit ñi bëggee ci boppam mu daa ko amee noonu te yàlla bu mu yàq yàlla bu yaakaaru nit ñi. tàggatoo. waaw li may tàggatoo mooy ndaw ñi dañ dem ñaalu ci ci boppam te maam da wàllum seet maam dañ seetlu seen i mbir da dem sangutu ci boppam ndax mbirum ñaan doon na ci loo xam ne si ne maanaam ah, doom ndaw li fu mu toll daa war di ñaalu ci boppam di ñaan ci suñu borom daay defal ñëpp jàmm tamit kenn ko li ngay sàkku ak li nga moom nga bëgg am. Mhm. di di jaar ci yoon di jaar ci yoonu wut yàlla na suñu borom daje ak am ci bàkki borom bi subhaanahu wa taala mhm.